saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa week-end bu chargé ci wàllu làmb ci biir réew mi ak mbooleem gox-goxaat yi nekk ci réew mi fépp làmb nga fa dimanche 9 février bi ñu dëgmal amateuru làmb yi dootuñ ko fàtte Dakar Thiès Mbour Kaolack Palmarin ba Diofior fépp làmb nga fa bu dee fii ci Dakar lutte sans frappe am na fi lutte avec frappe am na fi bu dee ci arène nationale Khadim Samb moo fa woote ci diggante Bour Sine ak Eumeu Junior ñu ne deetawaay mu toftal a xaar ci le 9 février bi ñaari combat yooyu boo Eumeu benn ci arène nationale benn ci Adrien ci même dimanche bi ca TFM fa la Malika fas yéene jàkkaarloog fils de Balla seen face à face bu ñu jógee Dakar daal di jàll Thiès danañ fa fekk diggante building ak Alaaji Gaynde bile combat si jaxate moo ko organisé ci stade Maniang mu nekk combat bu Thiès gépp di xaar ndax dañoo jàpp ne combat pièce la li waral li ni mel nag mooy Alaaji Gaynde ñaari ñaari moo ko cay xaar ba ci njëkk mooy day jëlal ambulance revanche ambulance may seen tête de file moo ko daan ñaareel ba mooy mu mën a daan ngir conserver titre meilleur espoir bu dee building moo jiitu alaaji gaynde ci làmb moo ko ëpp expérience moom it défi ba koy xaar ca combat ba mooy mos mosaat dugg na écurie bëgg sa waajur en daan fa ambulance moom building dafa bëgg daan alaaji gaynde muy ñaari mbër yu mu daan ci écurie bëgg sa waajur bu dee ñoom dimanche le 9 la seenu galaa jëm le 10 février foofee lutte sans frappe le 3 millions tegal mbër association jalki jéeg moo organisé li muy le 9 ak le février bu dee ca Kaolack ca stadium Lamine Gueye foofu 1 million la tegal mbër am di Fall patron de la massage production moo organisé li animation ba Ndeye Fatou Adama Jalil ak Mor bu dee ca Palmarin 72 heures Ambroise Sarr yi lay jeex journal ba xam ne week ñaate bëgguma année blanche moom rëg-rëg la mu xam mooy am na mbër yoo xam ne dañ may bañ waaye bëgguma année blanche kii di Sa Thiès di guy gi di tafaatin ñoom ñépp may daw amul kenn ku ma ci ñeme moo tax ñu proposé ma Malick Niang waaye xam naa ci jël ko laa jëf faaw ma jël Malick Niang ndax bëgguma année blanche tafaatin ne ca tonn ne ko man de ñetti revanche yi bu ma ci am jël ndax bëgguma année blanche depuis ba ko Lac de Guiers daane en ba léegi nii jëlaatagul beneen ba mooy digganteem ak Bombardier gannaaw ba mu ko daanee ba léegi ba njort na ne Papa bu ko woowee ci écurie ba moom Gora Sock dana ko wuy ji bu ko Papa tàllalee loxo dana ko fekki ca écurie bu bees ba jërë ngeen jëf mbokk yi nekkoon li gën a fës ci ëtt yéen a kaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah